26. 26 réponse juste. ay girde girde yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi bëgg gars yi ñëw ah. <laughs> macha allah léegi deuxième partie. deuxième partie la ñuy dem kii kan la. ñu ngi kii kan la ñu ngi ciy profité di nuyu les internautes. waaw ñu ngi participer vraiment Zarko gars yi ñu ngi lay bëggee ci YouTube bi. ñu ngi ñu ngi leen ne kontaan nañ ci français yi ngay laa xamuñu woon noonu nga mel. ayca bisimilah kii kan la. <laughs> kii kan la image bi leen bii ñu leen di wan ci télévision bi. ngeen wax kan la kii kan la. kii kan la. kii kan la kii. kii kan la. kii kan la. Eh, nag bii nag ni ko nëbbee dafa ëpp ah. Eh, eh, non non bii ni ngeen bii kenn mënu ko yaatal leen ko tuuti. ah non ngeen def gaa yi dafa metti ah Mbaye Fall bàyyi si yi ngay def bii ku koy xam ah, bii kenn du ko xam bon wane ko ma wax parce que nii mënul man man boo ma defee nii duma ko xam ah. euh, waa bii ban kii kan Bassirou ah, waa kii mooy Karajo Large kii mooy Alaaji Bassirou Diagne grand Marème Diop grand sëriñ de Dakar as kii kan kii promoteur la woon. Mhm. moom mii liggéey na ci administration bi tëgg na ay làmb kii moo fexe ba ñaari mhm. doomu séeréer bëre. Mhm. muy Moussa jàmme ak Robert. lu yombuloon sax nag. te yombul woon. kii mu jël mu jëkk a tëgg stade Demba Diop. Robert Mbaye Guèye. kii moo ko tëggoon. moom mii moo ko tëggoon. ndeysaan mu nekkoon nit ku am personnalité. mu nekkoon jantalmaan tamit. nekkoon nit ku baax. nit ku daan dimbali ay doomi aadama waaw et puis bëggoon li mu doon waaw mus naay waxtaan ak moom ndeysaan fii ci këram ci zone B mm-hmm. mu may wax lu bari ci histoire u di ma wax lu bari ci histoire u Sénégal mm-hmm. ah, ci administration bi la nekkoon ah, di ci liggéey ba xëy nekk promoteur di jàppale mbër tëgg na ay Moussa Diame tëgg na Fallay Balde tëgg na Boy Bambara Doubal Lees ñoom ñëpp combat yu mag yi nga daan gis fii yëpp Alaaji Bassirou Diagne moo ko doon tëgg. kii mooy papay sama papa Pape Diagne. mooy papay Pape Diagne. ah ok bu Dakar. ok ah de passage ñu nuyu ko moom tamit di ko ñaanal di nuyu askanu lébu yëpp. ndeysaan yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu képp ku di lébu rek te nekk ci Sénégal. nuyu na leen jaarale ko ci Alaaji Bassirou Diagne yàlla na ko yàlla xare àjjana. kii kan la. ñu demaat beneen image Karajo. indice waaw non indice lay joxe. kii kan la e eh, eh, waxunu bii de waaw mais garaawul da seet ko ci sa ci sa kayit mi eh, non bi nga dugaloon sànq kay mënoon nga caa yemb rek parce que man bu ma indil problème voilà waa gis naa ko kii kan la mbokk yi kii moom it nag mus naa nekk promoteur HBK waaw waaw waaw kii tamit nekkoon na promoteur HBK yaakaar naa ne kii bokk na ci ñi liggéey liggéey bu am solo ci làmb waaw am na loo xam ne sax après moo ko indi ci làmb waaw parce que kii moo fi indi fukki combat ci benn journée ku ko ki ko xam kan la du moom déedéet yeggaguñ ci ba tey Gris 2 Palameng la du Palameng kii moom ak ñooñu ah? perte nga góor <laughs> a xalifa ah, per xalifa a dese xalifa kii kan la a ah, joxaat ñu beneen indi mais pourtant pourtant nag <laughs> ah mbër mi war na ko trouver quand même. ah ah oui. ndax Medina la dëkk. ah Medina la dëkk ah. <laughs> Medina la dëkk ah. moom it ma daa bokkoon ci collectivité Lébu. ah oui ci la bokk bien sûr. kàlla waaw Pa Ahmed la. kii Alaaji Ahmed Dieng Alaaji Ahmed Dieng. ndeysaan waaw Alaaji Ahmed làmb. làmb nekkatul reenu ñam ma ne ko lan la mu ne ma ràmb léegi reenu million la ndeysaan mu nekkoon góor gu baax ah bëggoon nag sëriñ Mourou Niang asbekaay kii daan ko jàppale doguma la mais moom laa njëkk dugg ci làmbam waaw fii stadium Iba moo njëkk a tëgg mu tëgg di diggante ki nga xam ne mooy suñu papa Mohamed Ali ak Mame Jambaan ak Mame Jambaan keroog papa Balde moo bëre combat spécial bi ak Matar Sylla bu écurie Médina muy combat bi bu njëkk a seetaan stade Iba Mar waaw keroog dañ fa def ay buum wërale ko ci biir macha allah waaw muy suñu papa Alaaji Ahmed Dieng <laughs> maire Médina waaw moom tamit suñu papa la sama mag moo nekkoon chauffeur sama mag bi nekk Japon waaw te tamit gorom la tamit da ñëw suñu kër am na doomam bu fa nekk maa ngi koy nuyu de passage. sama jabaru mag la. moom moo ko yar asuga yi. da daan ñëw kër gi yéeg ba troisième. da nga daan wax naan ko yow foo mënti nekk dama la fay fekk. dëgg la waaw moom tamit muy famille yoo xamante ne muy Pape Badam Dieng. bay Dame imaam imaam Baye Dame sama la sama rakk moom lañ ko tuddee. Adja Aram waaw ñoom moom ak sama papa benn lañ woon. waaw sama yaay sax buy expliqué ba giri bëggee bëree mu koy tere. Uh-huh. ci pa Baye Dame la demoon pour mu tere ko. waaw ndax moom moo nekkoon sunu papa ba fi sunu papa jugee. ndeysaan yàlla yërëm leen. amiin waay Alaaji Ahmed Dieng a ngi noonu. ku baaxoon ku lewetoon ku bëggoon. bëggoon parti socialiste. Mm. waaw waaw ah, moom ak kër gi këru socialiste la. moom rakku alaaji Adja Aram Dieng la Adja jigéen ju baax gayel aji nen na yéen ñëpp ñu ngi leen di jaale di jaale waa kër gi yëpp ndeysaan di jaale waale itam bili mi fi jógee ah moom tamit nekkoon lu rëy ci biir Médina danoo amoon dignité amoon ay valeur yoo xam dañ ko gëmoon doon ko dundee guddi ak bëccëg boo demoon kër Adja Aram Dieng bi muy dund chaque jour danga naan ngénte la hmm? ñi dox foofu yëpp fa këram la ñuy añee. këram la ñëpp di añee. boo ci bu mag la ñuy toog teg chaque jour. dama fa daan dem ak suma soxna daf may dugal ba ci biir chambre à coucher Aram. di waxtaan ak ñun di nu yedd di nu wax àdduna ci lu bari. ah kon ñu jaar ci Adja Alhaji Ahmed Dieng yal na ko yàlla xare àjjana. ah Adja Aram Dieng Baye Daam. ndeysaan ah, njaboot bi Bill. ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale Sénégal yëpp. ndeysaan ñi ay nit ñu baax la jërëjëf kii kan la. aja karaajo ñu dem. kan sëñ Modou. <laughs> kii moom. sëñ Modou. waa sëñ Modou ñaa ah, kii mooy kan. sëñ Modou ñaa ñu ngi ñuy bëri ñu bëri. dem bay bëri grand combat sëñ Modou ñaa moo leen. moo leen cëkk tëggal petit combat. dëgg la champion yi ngay dégg yëpp. Mm-hmm. kii daanaka ñoo duggandoo ci làmb bi ma ñëwee di reporter ci même année bi ci la duggee ci biir làmb mhm. waaw di tëgg ay combat ah, yaru daal doo dégg moo wax lii doo dégg moo wax lee làmb la bëgg këram boo fa demee kër sëñ Modou Niang fëtee yëpp petit mbëri yi ko daa yàq <laughs> fa la nit père tëggal ma combat père tëggal ma combat c'est sa famille ndeysaan mbër yi ay doomam lañu dëgg waaw mu doon nitu valeur moom tamit. Mm-hmm. moom tamit ñu ngi koy ñaanal te ba léegi mi ngi tëgg làmb te làmb ju mu tëgg eh, mu fees day neex mm-hmm. ah papay jaga bàll bay Yékini ndeysaan maa ngi koy fàttaliku foofu ci stade euh, Demba Diop mm-hmm. tëgg na ay ko ah Eumeu Sène Ouza fa Eumeu Sène feeñe waaw moo ko génnee sëriñ Modou ko génne Papa Sow Tonnerre ko Papa Sow Tonnerre Papa eh, euh, Ouza laa wax ak Eumeu Sène ak moom moo ko tëgg xale yu guy geeg ñooñu ñëpp moo leen génn. Ama Baldé moo ko génne moo génne Ama moo génne guy gi moo ko jëkk a tëgg moo ko jëkk a tëgg moo génne Tidiane Faye moo génne Fëgala sama premier combat moo ko tëgg moo ko tëgg voilà kooku mooy Serigne Modou Niang moom it nan ko ñaanal yàlla guddal fanam yàlla yokk taxawaayam amiin nit ku baax la ayca bisimilah kii kan la kii kan la Karaajo Góorandoo kii kan la kii suñu père Moussa Faye Gueye la juum <laughs> nga perte am na am na bu yëngu de kii kan la kii nag moom bu ngeen ko xamul ah. mbokk yi kii. <laughs> chaque ngeen gis ko ci làmb chaque dimanche tous les dimanches. waaw kii kan la waaw kii père ñoxo bàyyi. waa kii père ñoxo bàyyi la. kii Ndiokho. ah micro central. ak lu mbër ngeen def. ah yéen ñaar yéen def mbër. Ah, ah, ah, am na lu jarax de. affaire am na lu jarax ah. la kay. solidarité solidarité. bu ma xool. Eh, <laughs> <laughs> Eh, et ah, ah, ah, kii mooy li ma la bëgg fay. <laughs> mooy ñoxo. waaw waaw kii doomu pikin la. moo daan tuusal Pape Diop. Boston. Pape Diop de passage ñu ngi lay nuyu bu baax dafa nekk ci tawat nee na làmb ji da koo abandonné bàyyi leen yooyu bu dee oh. feebaree ñu abandonné ko Boston kenn waru ko abandonné ñoo ko bàyyi Pape mhm. waaye son meilleur ami. muy kii tëggal mbay gi muy Ippo kii day tëggal Pape Diop kii di mhm. tëggal mbay gi ipo mooy ànd ak ñoom ñabaleek ñooñu ñëw tëggal mbay gi mhm. ñoxo mooy tëggal Pape Diop ci loolu la nekkoon bu mag la woon jóge fi dem Côte d'Ivoire dellusiwaat bi muy ñuy Fass Pikine ñuy bëree ah duñ bëri mais xaritoo bi nga ci bi ngeen ciy tudd depuis. waaw mais xaritoo gi ci Pape Diop la yemoon. après bi xale yi ñëwee. ñoom Mansour Diop. ci moom la commencé ñoom Mansour. ñoom Mbacké ñoom Balla bi ñu xam ni facette am na ñu maaseeg ñoom. dañu war a bëre war a bëre et puis dernier combat wu Mbaye Gueye ak Pape Diop foofu nag la ñu gën ah, moo déclenché ak moo déclenché parce que ñëw taxaw ci Pape Diop ñuy taxaw ci Mbaye Gueye. ah xam nga nappaate mbër yooyu. fa lañ jógee ku nekk ne ah Amzane Diakhaté nañ ko jox diw la Beye Tafa Gueye nangam nangam. fa la affaire yi déclenché. nga xamante ne ni ci la ñu commencé bëri mais sinon benn la ñu woon ah. Pape Diop ak Mbaye Gueye benn la mais waaw nii moo dàq. parce que pire Pikine sax am na fay combat yoo xam ne war na faa mën a am ndaxte day neexal ah, la kii quartier bi dëkk yàqul dara. yàqul dara. imagine booy booy ñaa ama. combat loolu mënul nekk mënul kon kii kan la. ñu dem kii kan la mbokk yi. Karajo. jox nga ñu ko kii kan la. Zarko kii kan la. <laughs> kii c'est un promoteur. kii tëgg na sama combat. beneen indi sa noonu. waaw est-ce que tëggul combat combat Gris kii voilà kii tëgg na euh, la. du Luc Nicolaï kii tëgg na kii tëgg na Modou Lo. na Modou waaw combat bi ñu waroon a bëree Demba Diop te mujjul am kii moo ko waroon a bëgg kàlla. kii Pape Abdou Fall. moom la <laughs> Pape Abdou Fall. waaw Pape Abdou Fall moom tamit vraiment. ah metti na. metti na. ah kan mooy Pape Abdou Fall. Pape Abdou Fall doomu Tiwaawan la. Mhm. Pape Abdou Fall promoteur la boo xamante ne ni daanaka mbër yi ne ci làmb ji genn wàll gi. wala 80 pour cent tëgg na leen. tëgg na leen ci combat yu mag. Mm-hmm. et puis di nit ko am fula. nit ko am personnalité di koo xamante ne nii aussi vraiment dafa investir lu bari day dem wuti ñëw investir ci biir làmb mm-hmm. Mm-hmm. addunaam yu ci bari it mi ngi ko paasee États-Unis bi mu ñibbisee doomu parcelle la aussi. footballeur la. football moo day jël drapeau su tuddee ko ay footballeurs. waaw ses amis les vétérans les vétérans yu mmh. parcelle. Mmh. Ah, mu tëgg ay combat yu mag tëgg na tafaatin maa ngi fàtt Tafatine Boy Sey. Mmh. moo ko tëgg. moom mag ba. bu mag booy say. tafaatin voilà tafa ko ci kaw xaatar bi ko. moom mii moo ko tëggoon. Ah, moom tamit muy promoteur boo xam ne te ni. combat lii yàq combat Ama Baldé. Tafatine moom mii Pape Abdou Fall moo ko waroon a tëgg. ba ci jour bi. ba ñu toog kër Pape Abdou war a joxe avance yi. làmb dafa bari bagage. ñu dévier combat bi. dem tëgg Ama Baldé Modou Lô. waaw mais Pape Abdou moo waroon a joxe la même jour avance. pour Tafatine. Ama Baldé combat bi ñu dévier affaire bi. Mm-hmm. yàq ko. yàqal na làmb. làmb ja mujj làmb làmb jën ko jënde woon it mujj làmb kon yaakaar naa ni loolu war na bokk ci lu nu war a gën a mën a jàngaat ah ci war a mën a defar waaw mooy borom Events Marriott Group wax nga dëgg moom muy tëgg ay làmb yu bari ñu ngi koy nuyu de passage Pape Ba Fall ah di koo xam ne ñu ngi lay ñaanal yow tamit yàlla yokk taxawaayam yokk mën-mënam mm-hmm.